Madame Aougué, honorable députée, présidente de la commission de la santé, de la population, des affaires sociales et de la solidarité nationale. Présente également du collectif des femmes parlementaires. waaw tey dañu ñëwoon fii ci Tivaouane au nom du président de l'Assemblée nationale monsieur Moustapha Niasse d'abord pour ñaar ba ñetti objectif njëkk bi moo doon ñëw jaale. personnel bi nekk ci biir hôpital bi jaarale ko ci madame la directrice mais jaale aussi famille yi nga xam ne ñoom la seen ay doom loru ci accident bi nga xam ne xew na fi ñu jaarale ko ci loxo madame la présidente di conseil départemental madame bu Gueye Touré beneen bi ci des mooy ñu masawu leen won leen na ñoog ñoom ñoo bokku tiis bi beneen bi nga xam ne moo mujj nag mooy ñu ñëw en tant que député gisal suñu bopp xool lan moo xew parce que loolu dafa bokk ci suñu ay mission suñu ay mission xam ngeen ko mooy contrôle de l'action du gouvernement et aussi suivi et évaluation des politiques publiques kon jaadu nañu sol suñu dàll ñëw waxtaan ak personnel bi xool mbir mi naka la demee ak lan moo fi xew bien que am na benn dossier boo xam ne justice mu ngi ko yore justice dina def liggéeyam waaye loolu du tere itam ñun nga xam ne ñoo toogal askan wi ca pencum ndaw réew mi ñu def li nga xam ne mooy suñu liggéey lan moo xew ci li ngeen jot a gis. waaw li ñuy jot a gis vraiment mooy que ne c'est un accident tragique donc accident bu metti la lool lañ jot a gis waaye gis nañu tamit wan nañu ay images yoo xam ne euh, wan nañu ne bâtiment bi ak infrastructure yi nekkoon ci biir logistique bi nekkoon ci biir yëpp yu bees la donc loolu wan nañu ko ay images yoo xam ne gisal nañ ko suñu bopp gis nañ nag ne yëf bi metti na trop waaye am na loo xam ne du si ñun ci. justice la donc loolu dañuy bàyyi justice mu def liggéeyam mais ñun daal li ñu gis mooy wan nañu ay image de réception du bâtiment image de la réception des des des du matériel bi nekk ci biir batiment bi mu nekk ay matériels yoo xam ne yu bees sàq la woon waaw ñun dañuy rafetlu vraiment mesures yi nga xam ne président de la république jël na ko bi mu ñëwee Tiwaawan d' abord muy mu tabaxal leen benn hôpital niveau 3 bu bees sàq loolu dañ koy rafetlu mais bi nga xam ne moom la ñu gën a rafetlu mooy li mu wax ne nañ ko saytul bërëb boo xam ne dafay am ay xale yu yuy doog a judd muy les service de néonatologie donc loolu ñun en tant que député dañ koy rafetlu bu baax a baax te incha allahu rabbi ñi nga xam ne ñoo bokk ci commission santé dinañ ci ànd ak ministre bi ànd ci ak ñi nga xam ne ñoo yore liggéey boobu saytu ko bañ def ko ni mu wa ni mu waree.